ñoo ngi dalal tey euh, sëñ bi Amadou Lamine Sano euh, secrétaire général union régionale euh, SUTSES bu Matam doon tamit secrétaire général sous section hôpital Ourossogui ñu ngi lay nuyu di la dalal ci réew mi. maa ngi leen di nuyu madame di kontaan ci invitation. Mhm. mooy occasion bi ngeen ma may pour ma mun wax ak opinion nationale sénégalais. Mhm. sénégalais ak même l'opinion internationale. Mhm. maa ngi leen di gërëm leen oui. dëgg la daanaka yàgg na ba ñu dalee dégg waa hôpital Ourossogui dañuy ñaxtu dañuy ñaxtu euh, ñu bëggoon rek a xam lan moo waral euh, yéen a ngi ñaxtu euh, boobu ak léegi. voilà li xew hôpital Ourossogui lenn rek la. Mhm. directeur bu ñu fi affecté mu ñëw liggéey neuf mois jàpp ne moom daal li fi ñor yépp moom moo ko yeyoo. Mhm. ne recruté na ay quelques infirmiers wala mérité na nañu yokk primam jëlee ko six cent cinquante mille yóbbu ko un million quatre vingt mille mm-hmm. te loolu li ko jiitu mooy moom ba mu dafa ne voilà moom këram il faut que hôpital équipé ko complètement frigo lal matelas télé et cetera lépp mm-hmm. bon ñu ne garaawul mais bi nga xamee ne ñëw na nag ba ne primam foog mu yóbbu ko un million quatre vingt mille mm-hmm. ñu ne ko nag saa waay taxawal léegi ñun d'accord nañ ñu yokk sa prime waaye nag comme liggéey bi ñun ñëpp ñoo ko seq. Mhm. bu ñu lay jox dara man aussi as bi nga xam ne loolu laa yelloo nañ ma ko jox mu ne déedéet lii moo andi coow di nekk hôpital Ourossogui. kon da ngeen bëggoon ñu harmoniser un peu prime yi daal. justement. Mhm. moom jot na loolu. mais ñun tamit au moins ku nekk ñu comp as tuut jox la. Mhm. ñun lii lañ wax. te booba ba léegi lii la ñuy wax. ci loolu nag suñu kilifa ñun ñëpp di directeur des établissements publics de santé ñëw na fi. Mhm. ñu toog waxtaan ak moom. ba kooku joxe ay recommandation mhm. ne ko yow yokk nañ say prime mhm. fexeel nga waxtaan ak ñi nga seet yow it lan lañ leen di yokkale mais dafa lank ba kooku ñibbe dafa lank taxaw fi mu taxaw médecin chef de région ñëw na wax ci dara même préfet département woo nañu ba ñun ñu suspendre suñu plan d'action mais lañ fa wax jële ko moom bi mu génnee dafa ne moom loolu ça ne l'engage du ko def ba fi ñuy wax ak yow defu ci dara continuer nag di menacer nit ñi di daqaate fii di convoquer fii gendarmerie mais ñun loolu yëngaluñu dañoo jàpp ne ci suñu droit lañ nekk lépp lu ñu yoon may dinañ ko def pour xeex ba nga xam ne dëgg dina dellu si ci hôpital bi. Mhm. ba ngeen paree ci directeur bi ngeen xam ne euh, boobaak léegi ba tey ñu ngi leen di dégg euh, euh, maanaam ci xëccoo tey ñu déggaat ngeen di wax ci président conseil d'administration bi li ngeen di ñaawlu bokk na ci li ngeen dégg ne cinq cent mille yi nga xam ne dañ ko koy jox weer gu nekk. waaw information yooyu ñu ngi koy jot ci biir hôpital bi loolu moo waral ñun en tant que syndicat ñu bind directeur lettre. ne ko mhm. kat ay xibaar yuy wax ne président conseil d'administration bi ñu ngi koy jox cinq cent mille par mois loolu dañoo bëgg xam nan la tëddee lu ko waral ak kañ la commencé. ndax tontu na leen. lettre boobu maa ngi ñëw joxaale nañ ampliation gouverneur jox nañ ampliation PCA ci boppam. Mhm. ak ampliation médecin chef de région. donc bi ñu ko joxee kenn tontu wuñu ba léegi. Mhm. te loolu bu tontu wuñ ci ñun dañoo jàpp ne xibaar yooyu ñuy jot bu dee vérifié nañ ko. Mm-hmm. dafay andi rek njort yi nga xam ne ñun amoon nañ ko ci départ bi. mooy yéen yéen lan ngeen jàpp ni moo am ci diggante boobu ba ku nekk bëgg a euh, neexal moromam ci dara daal. li ñu njortoon mooy. Mm. diggante directeur bi ak président commission conseil d'administration bi. Mm. am na lu lëndëm lu nekk seen biir maanaam benn complot bu ñuy teg ci kaw personnel bi parce que. Mm. li tax ñun ñu xalaat loolu. Mm-hmm. mooy directeur bi fi jógee di Mamadou njaay nekk tey Rufisque Youssou Mbargane mhm. def na fi juróomi at. ok def fi liggéey boo xam ne ñëpp teg nañ ci seen bët. Mhm. waaye kooku président mosu ko proposé ne dañ lay yokkal sa prix. léegi bu kii ñëwee tey asalaamaaleykum teg ay bagages rek ñu ne ko waaw yow prix mu directeur bi dafa tuuti foog ñu yokk ko donc am na lu nekk ci suuf. te yéen lan ngeen jàpp ne moo ca ne. dañoo jàpp ne ger la. ok bu fekkente ne loolu am na ñun dañoo jàpp ne guerre moo waral musuñu ko jox kale kii ñëw asalaamaaleykum ñu jox ko ko léegi personnel bi di wax kenn faalewu leen. Mhm. Mhm. waaw loolu dañ koy mhm. ñaawlu dañ koy ñaawlu bu baax a baax a baax parce que ñun mënuñu nekk ci biir malade yi. di rey suñu bopp coronavirus bi ngay dégg. ba mu ne cëpp wurusoo gi man mii di wax ak yow malaat bi fa njëkk am corona man maa dugg ci saal bi ñu tëju ma ak moom ma def prélèvement bi ñu mu positif boobu nga xam ne buñ ne corona ñëpp dañuy daw. Mhm. alors ñu simeeku sol suñu dugg ci biir prélevé ko yóbbu ñu testé ko mu positif ñu ñëw faj malaat boobu. Mhm. mun nañ fa jël feebar yi yóbbu ko suñu kër dem wàllu suñuy njaboot. dëgg la ci dee muy risque yi tey yaa ngi yaa ngi wax tamit si corona le sax gestion bi ngeen ne yéen am na lu leen ci jaaxal justement mhm. mu ñëw si corona boobu parce que risque yooyu ñu jël yëpp ñun di ko def mhm. mais nag dañoo nangu ne suñu liggéey la loolu moo tax directeur ba nga xawee ne xaalisu corona bi ñëw na mhm. dëgg la ñi nekkoon ci CTE bi fay na leen euh, matériel jënd na ko jënd na médicament mais daf ci am pàcc boo xam ne dafa waroon ci loolu lañu waroon di jox malade yi ñu hospitalisé lekk ak naan mais loolu noonu mosu ci wax nit dara kenn mosu ci xam dara. ba benn commission ñëw fi audit moom ci boppam moo déclaré ne moom moo te loolu mu ngi ko wax ci benn réunion bu mu convoqué ci bureau avec les partenaires sociaux c'était le 3 décembre 2021. Mm-hmm. mu ne moom moo utiliser facture vierge pour justifier fonds yooyu nga xam ne ci lañ waroon a wutal malaat yi lu ñu lekk ak lu ñu naan parce que dafa bañoon xaalis boobu rek ci hôpital kon bu ma la déggee moom wax na ne xaalis bi ci hôpital bi la ko mujjee dugal. mais ñun dañ ko ne xaalis boobu comme yow danga ne déjà déjà amul droit utiliser facture vierge même bu dee daf ko bëgg dugal ci hôpital mais duñ dañ ko ne yow da nga ne da nga ko bëgg a dugal ci hôpital da nga bañ mu rek ci hôpital léegi comme rëccul hôpital wutu nga facture vierge wax ñu foo ko def ci hôpital bi ñu gis ñun liggéey kat lañ ci hôpital bi. Mm-hmm. xaalis bu fi dugg xaalis bu fu génn am nañ droit ñu xam nu mu demee mais ba fi may wax ak yow ñu wax ne xaalis bi nii la toll fii laa ko def wala lee laa ci def. amul benn explication. amul benn explication donc nag ñun dañoo jàpp ne loolu lu ñaaw la te loolu loo xam ne la parce que ñun ñii suñ ko defoon tey d'ailleurs bi ma ko ko waxee. dafa mer mu dem porter ma plainte. Mm-hmm. ma ne ko nañ dem ñu dem gendarmerie gendarme déglu ko déglu ma. yaa ngi gis. Mm-hmm. ñu génn dem jël huissier parce que comme am na ñu fekkoon réunion ba mu koy wax. Mm-hmm. huissier bi ñëw laaj ñooñu ñooñu ne effectivement directeur moo wax lii ci biir réunion nangam te ñooñu témoigner loolu. le chef de service administratif et financier ci la bokk. le représentant des médecins muy PCM ci la bokk ñoom ñëpp témoigné ñu loolu ci kanamu huissier ne directeur moo wax wax jooju ci réunion bi. d'accord alors bu xamee ne nag euh, huissier ñëw na. Mhm. témoignage yooyu am na. Mhm. mu daw retiré plainte yéen boobaak léegi yéen a ngi amal tamit ay plan d'action bàyyiwu leen benn yoon euh, ci seeni plan d'action ñoo ngi ciy dégg ay rétention d'information euh, d'ailleurs campagne de vaccination bi mujj sax am na nu ngeen taxawee euh, tey ñu bëggoon a xam ndax li ni du gàllankoor liggéey bi ci diwaan gi. waaw li ni mel dina gàllankoor liggéey bi bu baax a baax a baax. Mm-hmm. mais nag ñun la ñu waroon def nañ ko. Mm. mooy am nañ lu ñu metti yëglu nañ bind nañ wax nañ. mais bu fekkente ne nag kenn faalewuñu ñun li ñu yoon may danañ ko def mooy lan déposé nañ suñu préavis de grève mat na trente jours kenn woowuñu waxtaan waxtaan bu sérieux amuñu satisfaction ci waxtaan yi ñu jot a am léegi dañuy deralu suñu plan action def nañ trois sitting si hôpital Ourossogui avec des points de presse. Mm. ñu ngi suñu troisième plan d' action au niveau régional. te rétention d' information boobu nga wax ñu ngi koy continuer ñu ngi koy wéyal. te loolu lan lay yàq ci liggéey bi. loolu lu bëri lay yàq ci liggéey bi ñun xam nañ ko parce que liggéeykatu santé lañ. Mm-hmm. comme mais nag ma ko waxee sànq ni ma ko waxee sànq su fekkante ne ñun. jàpp nañ ne am na ku nekk suñu kaw di ñu teg loo xam ne teguwul ci yoon. Mm-hmm. ñuy wax di yuuxu kenn faalewuñu donc suñuy continuer suñu yëf la responsabilité est ailleurs voilà. tey jii bu amee rétention d'information je veux dire campagne bi ak lépp lu jëm ci Covid bi comme ni nga ko waxee information yooyu kon euh, mm-hmm. ñi di autorité yi maanaam ministère amuñu ci benn info ci mbir yooyu. benn info amuñ parce que campagne vaccination polio bu la neexee nga dem laajte ministère zéro en tout cas on a vacciné les enfants. Mm-hmm. mais zéro donnée joxewuñ ko te li ma lay wax nii c'est dans toute la région de maatam parce que tous les ICP de la région de Matam ci suñu syndicat bi la ñu bokk. te loolu yëpp te loolu yëpp état ko pour mu def la ah, situation dans cette région. ñoom ne dafa mel ni inquiété wu leen parce que ñu ngi seetaan ñu ngi seetaan mais ba tey jii kenn mënu la wax ne évaluation campagne de vaccination polio à la région de maatam nii lañ def lii moo manqué lii lañ am. kenn mënu koo wax képp ku ko wax da nga ko teg ci lu la neex parce que données yaa ngi fii ñu téye joxuñu ko ma sàmba joxuñu ko ma demba sëñ bi nga foog ne lan moo waral gannaaw euh, seen i ñaxtu ak it révélation yi ngeen di def ci seen hôpital bi ak seen diwaan bi faj mi euh, kenn mënu leen euh, wuyu waaw lenn rek parce que moom ci boppam directeur léeg-léeg day bàkku hmm. léeg dafay bàkku te ñun ñu ñuy wax ne sax sëriñam moo ko boole ak ministre de la santé Abdoulaye Diouf saar kenn mënulu ko dara mm-hmm. ñun nag nga wéeru ci kilifa diina nga dem wéeru ci ministère de la santé ñu ngi jox cër lool suñu kilifa diina yi mm-hmm. ñu ngi jox cër lool suñ ministre de la santé mm-hmm. mais dañoo jàpp ne ñun ci république lañ nekk ci république lañ nekk te ay citoyens sénégalais lañ buñ ñu àndilee directeur boo xam ne au lieu que ñu liggéey jëmale hôpital bi kanam moom ak président conseil d'administration bi. Mhm. ñu fekk ne nag ñoom notre personnel bi moo leen yitteel. Mhm. defar lu defar seen i ñoom ñaar ak notre personnel bi loolu moo leen yitteel. ñun syndicat bien organisé lañ fii la ñuy taxaw tey ba suba ba gannaaw suba lépp lu ñu yoon may pour xeex ak ñoom dinañ ko def. et justement lan mooy doon seen prochaine étape bu plan d'action bi nga xam ne tàmbali ngeen ko. plan d'action bi tàmbali nañ ko dernière activité bi mooy sitting bi ñu def ba ak point de presse te liñ ci wax Sénégal yëpp dégg nañ ko. Mhm. alors bu si yàlla àndee samedi dinañ dem Ranérou au centre de santé de Ranérou. Mhm. pour def suñu évaluation parce que le plan d'action c'est régional c'est tout la région de Matam. Mhm. dinañ dem Ranérou dinañ def suñu évaluation. dinañ projet bu soobee yàlla bu en tout cas bu fee amul benn waxtaan bu sérieux boo xam ne dinañ teg dara suñu loxo. Mhm. dinañ defaat suñ beneen plan d'action ni ma la ko waxee sànq dinañ xalaat yan la ñuy tegaat te dinañ ko continuer en tout cas suñu préavis de grève sa va nous couvrir jusqu'au vingt cinq octobre deux mille vingt deux pour vous dire que on est prêt à aller au minimum jusqu'au 25 octobre de cette lay jaajëfal bu baax a baax sëñ bi Amadou Lamine Sano euh, secrétaire général union régionale SUTSAS bu Matam secrétaire général également euh, sous section bu hôpital bu Ourossogui merci beaucoup. maa bi.